écrire la langue officielle xolal Sénégal c'est pour démentir ñooñu xalal gis na loolu ku ko wax xam nga politique warul am xaste si yoon politique warul am xaste vraiment léegi xaste bi mooy aujourd'hui xam nañ ne que doomu daara la hmm. mais fu mu njëkkee c'est un ministre de la République musaa Thiam moo toog mu ne hmm. doomu daara yi ak jaaykatu euh, ganaar yi nga xam ne mën nañ la jënd ñoom ñëpp yow yow yow di la fay weer nga yàgg dem sax ñuy régler say problème yooyu moom ma dama am sax kersa di ci dellu soir que c'est des propos yoo xam te ni waa PDS man gis naa fan yi ñoo xam ne euh, ñun ñëpp fii Sénégal xamante nañu. Mm-hmm, mm-hmm. yow bu dee yow yow jigéen bi kay wax euh, bu ñu neexee sax ñu def body shaming. nga yow bu ñu neexee nga wax ko lii xas ko ñu ni ñu génn ne la yaa ngi ñu wax béy parce que amul peut-être am suñ la xoolee bu ñu la xasul ci lii xas la ci sa physique. Mm-hmm, xam nga on. on peut dire plein de choses xas ko tu ressembles à une chèvre kii keneen génn wax ñu ñu ñu xas la politique du xas xaste xam nga lan la débat d'idées conseil constitutionnel c'est sept sage kenn gënu leen jàng Sénégal charte yi ñu teg ñëpp fi mu nekk nii bu dul woon conseil constitutionnel ñun xam ngeen ne euh, président Macky Sall ak ñi mu àndal lébéjee nañ ñu yàgg na. ñun ñii ñëpp fi mu nekk man yow keneen ak keneen tous les sénégalais conseil constitutionnel la ñu yaakaar. Mhm. donc il faut pas qu'on insulte leurs compétences. Mhm. ni aujourd'hui leurs prérogatives. savoir lire et écrire la ñu wax savoir lire et écrire boobu su ko Serigne Mboup respecté wul woon tey jii du nekk candidat. en fait dañu wax ni est-ce que testé nañu est-ce que def nañu liggéey. waaw yow wala ci déclaration d'honneur. mais bien sûr mais bien sûr Serigne Mboup a euh, holding. man waxuma holding bi dama ni non dama ne la holding xoolal tey jii dama ne la dama ne la dama jël testé testé mais bien sûr xam nañ ko xam nañ ko ci déclaration d'honneur bi ci dé xoolal même ci déclaration d'honneur bi tey dama lay wax. comme ni ñenn ñi ni woon benn nationalité la am ñu dem ci biir. gis benn nationalité la am ñu dem ba ci biir gis nga loolu yëpp ñi jàng waa mais fotu ñi jàng la tey ana ñiy xasteex noonu ñoom seen fot la ñi jàng sama suñu classe gi ñun ñi parce que même tey processus électoral bi tout le monde ñëpp d'accord nañ ne am na ay failles mais am na ay failles li ngay wax noonu ci nationalité on a pas on un ministère des affaires étrangères on a un ministère boo xam ne am na ay représentation diplomatique un peu partout dans le monde mmh. c'était très facile de vérifier les de de vérifier oui, mais les c'était le boulot du conseil constitutionnel aussi c'était le c'était le mmh. mais aujourd'hui conseil constitutionnel buy organiser uh mmh. -huh. l'État est à côté l'État est à côté tey responsabilité organisation logistique organisation pratique et tout état am na ci wàll gis nga yooyu même dama la bëgg a wax tey jii boo xoolee li ñuy naan le système occidental a montré ses limites. a montré ses limites ah y' a pas de système infaillible ça n'existe a pas de léegi nañ jàpp ne fee la ca infaillible. Mhm. man man de la ca infaillible man neex na ma man ci système bi ñoom euh, président Serigne Boub jógee neex na ma. non parce je que... parle de, de du conseil constitutionnel. waaw dama ne la foofu laa jëm dama ne. la ca infaillible neex na ma. beneen ba nga xam ne nag moom la ñuy ndaboo ñun ñii. te mu jóge ci système occidental la ca infaillible moo ñu indil tey jii suñu désorganisation bi ak vision yi nga xam ne baaxul ba tey jii aujourd'hui réew mi jaxasoo. voilà donc man je pense aussi que les gens il faut qu'ils qu'ils qu'ils sachent raison garder. il faut que ñu respectante politique. du xastante du waxante lu bon du def nii du def naa c'est des débat d'idées. d'accord c'est des débats d'idées le, le président Serigne Mboup mmh. il sait lire en français il sait écrire en français mmh. et c'est tout à son honneur parce que dafa jàng alxuraan gis nga livre alxuraan ku ko mokkal doo como mën ko réciter de A à Z ñun xoolal xoolal le travail intellectuel de mémorisation boobu leer nga wax léegi ba nga pare loolu mu pare loolu ca la dem jàngi français am uh-huh. ca la dem jàngi anglais am uh-huh. waa àndalax àndax président Serigne Boub Chine da ngay jommi man ba mu njëkkee làkk chinois sax dama ne mais comment comment ça se fait loolu mooy li nga xam ne mooy le degré de compétence te da nga koy jàng en management nit compétence moo yor réew uh-huh.